أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهيسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من حمسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ihdina siraatal mustaqima siraatal lasiina anhamta alayhim xayril maxduubi alayhim wala daaliina amiin barkeb Sëriñ Fallu bokki jullit yi noo ngi leen di dikke tey xasida goo xam ne làmboo na njariñal àddina ak njariñal alaaxira Sëriñ Muusaa Ka mi nga xam ne kenn la woon ci fànn gi mu féete ci yoonu sëriñ bi di aalim ju rafet la woon xam-xam te laabir ca lépp loo xam ne gis na ko mu njariñ rek mu yaxal ko moo def xasida gi tudde ko wasiyatu nisiwaan nuy ñaan ci yàlla lépp loo xam ne digle nañ ko ci te mu war jullit ci lislaam yàlla jàppandal nu kàttan gu nu ko mën a jëfe te mu nangul nu jëf jëf ci barkeb sëriñ bi lépp loo xam ne itam luy lor doomu aadama la te ñu muslu ko ci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 xaala Muusaa al-Kaliim xaadimul xadiimul xadiim axoosu billahi min wa kullu kaa'idin min annasraani wa kullu haasidin min aljiiraani wa kullu kaabidin min alasnaani wa kullu jaa'irin min alxilmaani xanil hudaa wal hilmi linnasraani yéen gaa yi maa ngi deeti sant yàlla tey muslu lépp lu xaraam du yilla alhamdulilahi rabbal alamin naa rabbal harfi julli ci laamiin te muslu yiñ xewal ci sun bii xarnu nañu Cheikh Bamba ak maam Cerno góor ak jigéen ñëpp jëm Ndakaaru ànd ak ñu bon ña fàtte Tuuba ak Daaru di wuti xaalis ak woroomi mécce fàtte boroomi diine fàtte gàcce ku ci deful jàngal liggéey ak julli mu di sa métier bés ba duñ la jàlle Seex Bàmba noon na jamonoy baliisaam lu juddu ginnaawam di roy ibliisaam muy góor la muy jigéen la war nay tuubi ci sun boroom te naa ko tuubi ruubi ngir ku ci tuubul abadan ba faatu du texe duñ ko ram dootul yaatu tubtu ilallaahi wali rasooli man reccu naa lépp balañ maa soole moo tax ma jóg di way di waarey dénke ngir xarnu bi xiiwal yi mën naa sànke samaytuha wasiyatu niswaani wa kullu xaafilin min asubaani xam naa du tax sax ndaw ñu bon ñi waaru waaye du tee waare ngir ganaaru ndaxte li may bon bon gisoon naa bàmba gis lam bañ lam bëgg ngir yonnen ba sëriñ Mamar Ja mooma woyloo way wii di laaj soloy jigéen ñi xawma lay wii kon nag dinaa wax ba samay xibaar siiw bañ xam ne bëgg naa lu baax lu baax a néew ab xaj bu mat kenn mënu koo teree baw ku tobbi to ku la mbéw mbéw ab xaj bu mat kenn mënu koo teree baw ku tabbi tool boroom naa la mbéw mbéw kurul ci lislaami sëriñ tuubaa ji nga bañ alxaaji mbaa jumaa ji la njéem jigéen la maa lay xéeru matt la baw la ba ca fuuta tooro ahaatana laahu jigéen juy mandi ci reklees ak beer di ànd ak bandi suy naan ci beer bay bëgg a ne làcc jahanama a koy xaaru moo raw ahaatanaa laahu jigéeni garbo kër gu mu nekk soppi ay kalbu góor ñaak jigéen ñépp lay caaxaan loo te ku mu wéetal bëgg laa saay saay loo góor gu dëgganteeg moom tànk yàqule ku lekk aw ñamam xisaab ba teq la góor gu ko watuwul dingeen ngeen dem naari yowmal xiyaamati du ngeen fa jaare Cheikh Bamba noon na soxna faati tuuti waxal borom mi teel yi nañ tuubaati seen naa mi yu bari fii niiraani ku wattuwul góor ña du dem jinaani mu ne ko ndax seenoo waroomi kaala ngir di ko kekkantoo di xiili xaala mu ne ko koo fa seen ci doomi aadama waroom mi yaa ko dugal ci aanama la dale aadama ba fii ci duniyaa bir yu fi xew jigéen def yu bon yaa yonnen yaag sahaaba yaag labdaal ya waliyu yaag mbooleem ña fenten ngir ya lu ma xew ci seen diggante ñooma kenn mënu leen a të lu yàqu ñooma pexem jigéen raw na pexem seytaane yàllaa ko wax ci alxuraan giñ naa di sàkkub dénk ngir yonnen baab ci yoonu diine ji ci yoonu bàmba danaa la dénk dénk tey saa ak bépp saadix bu ma jox am nopp xamuma dara dara fil asmaani jànguma lëwal duma fóore saani waaye danaa la wax la yoon nen ba ak la mu bañ alxuraan dajeekun wa ma aateekum rasulu fa xusoo wa ma naheekum hanhu fantahoo la soo ataamuroona naasa bilbiri wax kuy digle war naa jëkke boppam sogo wax ma jëkk laa wax waxi Seyxi Bamba soog laa waxal lañ yónni woon yónneen ba laa taqraboo sinaa walal muqaddamaat li wajhi baaqin xóoruhoo mu xasamaat wajtani bool xultata wal mubaashara li ajnabiyati maal munaasara innal ajaaniba la awtaani wa xayrihaa habaa'ilu seytaani اجهل تزوجا مكان قرب لأجنبية تفز بالقرب نائل أجانب رمت تزوجا أو جملا صبرك تكفى الحوجا lii ma la wax munawiru sudoori ca la ko wax moo tax ma faf ko doore ma wolofal ko ndax ku déggul yaaram xam li ma wax ngir bàmba rekk yaaram bul jege kuy njaaloo te bul nobante bul laale bul xoolante bul fóonante bul jaxasoo ku la lewul bul bomboo dawal bu baax sori ak la mu lamboo mbaalu ko mooy ngeen ànd dem niiraana kenn dootu leen dugal jinaana jigéen dafay pett ngalab saytaane moom lay rëbbeew góor yóbbu leen niiraani moo tax manaa la sori leen te daw a daw tey dëkke muñ ba yàlla jox la ku la lew déglul ma dellu wax la lay cosaani lii lépp lépp mooy min arrahmaani danaa la wax la dale woon ca maam aadama ak awa nga xam ne nooy jaam ba ca la jëkkan aadama ak iblisa ba tax malaaka yi ñëw di yóbbu soosa ngir yàlla sàkkan na lu mat juróom-ñaar mu mat juróom-ñaari junni at ku ne xaar ba muy juróom-ñaar ku ne tudd aadama lii la addis ba wax xibaari aadama aadama mi maami rasulullaahi la mujj yónni fi ci suuf lillaahi te ko buur yàlla di andi àdduna fekkoon na ay jinne la dénkan àdduna jinne ya sax nañ fi lu mat ay junni fees dell àdduna ba duniyaa keroog ba yàlla yi bëgg a bind aadama ngir dara jaay njool makkatal mukarrama la yónni jibriilu ak mikaayilu kasaaka israafiilu xisraayilu ñu ànd ñëw fi suuf ca beeloo asamaaw yenante xibla yi di leen jàpp ñu tibb mbuuti suuf yépp yóbbu asamaaw ci ndigalal borom aras suuf ne ko waaw ñu tibb buuti suuf yi yóbbu asamaaw ci ndigalal boroom aras suuf ne ko waaw fekkoon na suuf jooy ngir yërëm lu ba gaaya dellu asamaaw tawat lu bur yàlla dal yónni israa'iilu mu déqi suuf yët ko mu dal kiilu keroog la israa'iilu yóbbu ba bur yàlla fab ruuga tabax ca ban ba bésëb keroog la yàlla def israa'iil muy malakul mawti fa yàlla nanu beel mu daal di leen yebal ñu del ci duniyaa rey jinne yépp dàq xeet yu bon yaa yii jinne daw ba génn mboolem duniyaa tabbi ca géeje yéeg ca doj yaa duniya moo tax ba jinne gën a fonk ndox ma malaaka yaa leen dóor ba weesu mbeex ma ñu jàpp ca xaleel bu ndaw bu taaru ab xiig la booba ca ginnaaw ndakaaru malaaka yaa ko jàpp andi asamaaw wan ko malaakay asamaaw ñépp ne waaw yàlla ne leen na ngeen ko jàngal sàbbaal te di ko yóbbuloo ci seeni lahwaal malaaka yaa ngi koy seet si ngir taaram ba te di ko sàbbaaloo mu jaamu rabbaam bam fa amee ay ati at mu fasar xel may xalam góor ak jigéen muy kër-kër malaaka yi sàppe di julli sàbbaal mu ñëw xawee ku juutu leen di gàmbaal malaaka yépp dal di faatu foofa mu des sa moom dong keroog ma boofa malaaka su gis awra dal di faatu moo tax ba kuy sangu du wax du yaatu keroog la jibril dem farabbul xarsi xibaar ko mbir ma yàlla dal koy forcé ba mu ñëwee fekk mu fab xaweeku malaaka yaa ko ma soob ko ko keroog la dal di biir ngir sawara ba doom ja juddooy góor kilee di sàqara malaaka yaa ko tudde woon xasaasil bésub keroog du gaaw a gis israil ndegam jigéen a mën def nii asamaaw yàlla ak malaaka yépp teew ku ne ne waaw lu ne jigéen dana ko def ci suuf si yàlla ak sëriñ si di ko gis muy noose ñu teg ca ay fan ndey ja dal faatu malaaka yaa yërmandeel muy aatu muy dem diggante malakoot ak mulku diggante kursi yoog aras mu xam ko suuf yi juróom yaar asamaaw juróom yaar foo sebre si jóot na fa mas jaar ba yàlla wax jibrilu ak malaaka ya nañu ko def njiit muy dogal seen atte ya ñu ko njiit muy atte mulkoog malakoot balaa dara am yàlla wax ko ko mu tiit keroog ba buur yàlla tenee aadama ñeen fukki fan la am di ban fawqa sama mu def ca ruune usjudoo li aadama fa sajadoo ibliisu naa lank na ma malaaka yépp ne nërëm ci aadama daldi si jóot leer ak niit na ma guddi keroog gis na la buur santaane am ku ko bañ ñu naa koy ay saytaane ba ñuy si jóot ba xam kuy kooka ndekete moom la yàlla rëyloo rooga yàllaa nga naa ko yow asaasiilu yaa rëy lu la teree sujjóot ndaxam danaa la rey mu naa ko man xalaqtani min noori la jublu woon làmmeñ wa wax lam doore keroog la soppi tur wa tudd iblis mooy waaja naagu yërmandeem faf di waliis bésub keroog la yàlla génne iblis ne ko demal yàggu la topp ndawloos iblis jinney ndey ja baay bay naari moo tax bañ aadama bañ muxtaari keroog la tàmbalee fexeel maam aadama ak doomi aadama ye jëm jaanama yaa rabbi najjinaa mina seytaani wa jawratil jiiraani wa sultaani wa kullu naafisin halal xoqoodi wa saalimin wa haabidin hasoodi wa taariqin fi turuqin tadlili wa kullu talmisin wasil balili fa bidduhain yasrifu lbalaya wa birrajai yoojidul hataaya buur yàlla kër bam bindee maam aadama malaaka yaa ngi koy yedd moom fawqa samaam malaaka yaa nga fu nuy sabbaale ngir ñoom dañuy tuur dàmm tey digaale yàlla ne bu leen ma yedd xam naa lu ngeen xamul kun fa yàkkoonu dog naa dellu ne leen ba ma amee amagu leen maa leen amal ba ma xamee xamagu leen inni ahlamu la wax malaaka ya dolli ca maalaa tax la moona laaya ya yàlla ne leen kon nag dinaa leen laaj tur su ngeen xamee baatin ba yey ma duma mbër malaaka yaak aadama yéen laa koy laaj ku ko ci xam mooy def xalifatu du waaj ay tur la fi chamaa yi ak yenn ci suuf ak mulku ak ca malakoot mboot laa keroof buur yàlla dal di indi mboolem tur ya ca asamaaw ak yi ci suuf ak mboot ya dal di xamal mboolem tur saayir saak baatin ba ca mbir saayir saak baatin ba yàlla déey ko aadama tey bañ malaaka ya yëg ko ba kenn xamatul dara ci suuf ba asamaaw bay tala dajale leen ñoom ñëpp ak maama Adama laaj leen xibaar yi tur fi samaam ñu naa ko subhaanaka laa xilma lana ci alxuraan ba teg te maa xàllamtana mu daal laaj Adama mbooleem tur ya ca asamaaw ak ya ca suuf ak mbóot ya Adama wax ko yëpp settee bir malaaka yëpp dégg buur boor ya yàlla ne inni jaahilun fil ardi xalifatan xeetam wa ñëw muy fardi ngir darajay muhammadu rasulu salaa moom laa woolu moo tax mu roog leer ak rasulullaahi ca maam niin ba ca moom moo tax ba kenn warul di yedd kilifaam lu mën def ba ko ca moo xam mbiri jaam lañ doon yedd sàkkaa mbindéef amaana ku yedde ni man ta dis mbindéef ilayhi tubtu tawbatan nasooha wajhal lisaani fi ridaa fasiha malaaka yépp daal di tuub lillaahi aadama def xalifatan lillaahi keroog la mbooleem luy malaayika di tuub di rëccu lañ doon yedde yàlla la ko soob yàlla na leen dem leen ca suuf tabax fa baytal ilaahi sama neeg ma ñëw fa mooy kaxbatullaahi ca réewam màkka doom aadama cay julli rakka keroog la yàlla rëddaloo jibriilu baytil haram malaaka yay jëmbeelu malaaka yépp ñëw kudul asraayil moom su ñëwoon àdduna fa ruuya la xool xisaba gudd na ma wax la aadama ak waaju bon ja fa aw fawqa samaam keroog la iblis àndandoog malaaka tabbi ca aljana di war hunaaka jaan moo ko log tabbal ca biir aljana muy nëbbu yàlla ak malaakay janna muy wër di wër ba gis awaak aadama di fen di giñ bañ génn aljana samaam buur yàlla dal di ne ko génnal génnal yàkku la toppay tabbi naari la buur yàlla sànni ko mu ñëw ci duniyaa mu wàcc makkata di yéeg ca doj ya malaaka moomee yàlla def ko muy jaan ngir moo lagoon iblis ba yóbbu ko jinaan iblis a dellu yóbbu jaan fa xaaru xuntam rasulullahi ndax mu xaaru ne nga xaaru fi xayrul xalqi moo tax ñu bind aadama ak lu ñoqi bés bu bawoo makka ba jëm Madina màtt ko buusul ma ko bañ ne deena moo tax ba makka fanaanee xaaru jaan màtt Baabukar di buusuy xaaru ma dellu wax la nag diggante aadama ak sunu maam xew ca xidama tuut laa la ciy ci seeni jaar-jaar xajul ci way wii te jigéen day bàkkaar budul ko nag yàlla ak pexeem saytaane ak bañ wu jëg jigéen nu sax jinaani kon aadama awaa nga jinaani nu faf sosoo foofa bilaa bur yàlla def leen a dugal jinaana ne leen bu kenn mooy di dem niiraana yéen ñaara moom aljana ak seen doom ya ci dara jaay rasoolu ak maamam ya yéena ko moom lépp lu dul garab gii bu leen ko laal bu leen garab gii iblisa ñëw rambaaja awa ak aadama ne ko sa wujja moom garab gii wóor na ma fekkoon na aadama di wër aljana iblis gannaaw ko di fen ba ba awa mos garab ga dal koy sànq leel ko aadama mu dal koy lekk ba mu demee bay bëgg a wan na doom ya yàlla yebal jibrilu wax ko biir ne ko bu aadama wanee doomam ya ma far sa tur mu xarabiina ak jëf mu dikk bés fut ga ba loola génn mu dellu naj awaa ba loola senn looloo waral góor amu koor ca fut ga jigéen di yor dàmmi mbërëg ba set ga keroog la leen bur yàlla andi duniyaam ñu àndandoog seytaane ngir yóbban yow yaramu neen la ñu andiyaale duniyaam xobi garab gi la ñu làmboog yax ya wàcc na fa réewam jidda maam awa wàcc asbuhaan na jadd toog nañu ay at jooy jooy ba sonn réeroo nañuy at doxa dox ba génn doom aadamaa ngi àndandoog juróom yaar ngir xam ne naari kër ya day juróom yaar kër yi juróomi aar ñoo di jur gayru uur yi nooy ser di yey sàmm juróom buñu uur yi su boyalee ñu réer ko jëm nii raanam su boyalut ñu ànd dem jinaanam ku yeew te sàmm sàmm dem jinaana nan wuti gerte wuti buum subhaanam hadis baneem góor yetti yëf la war aar ñooy kilifay juróom nga ñoo bari tafaar bëtam baag biiram baag payam maam su leen mënee wattuñ juróom nga neex maam góor ya ti bàyyi ñoo di bopp géttam suñu demul jur ga du dem mu am ngërëm jigéen du yetti yëf la war di sàmm ñoo yetti laamam ya mu yor ne nemm làmmeñ wa ak loxoom ya ak lëfam ka su leen mënee wattu ñu fal ko ful ko jigéen ju ndaw yi lee di bopp géttam suñu moyul cër ya ca des ami ngërëm ji wax la yàlla yebe maam aadama ak maam awa ngir nga yërëm doomu aadama lii lépp nag dëngak jigéen ak péer maam moo ko waral moo tax mu jàdd ngir maam moo tax jigéen day fiir te siis bañ wujju te dënga ni faar mooy doon hombul sajj maam awa fiir gaa tax ñu génne aadama aljana andi ci duniyaa wóor na ma jigéen a tax aadama ñëw ci duniyaa ba jur fi nag ñeen fukki doom ca biir yam ñaar fukki biir la awaa ambal aadama bu nekk cheikh góor ak jigéen naajal ma jigéen ma nee su koo jubbanti ba mu jub da ngay cosaanam loo ko waar waarit du jub la ko waral ca aadama ak awa woon aadama rekk a am te awaa amulan hadis ba ne ba yàlla bindee aadama ma nga sosoo ci ban kamaata xaddamaam maam aadama ne yàlla yow mi bind kun ba aw ma ndey amuma baay wéet naa fi kon sàkkal ma wéttal wu jigéen woo xam ne danaa ci ami doom ba man caa yónni sàkkal ma wéttal wu jigéen woo xam ne dinaa ci am ay doom ba man caa yónni buur yàlla daal di ne ko tëddal jaaxaan mu tëdd faf nelaw te lii duy caaxaan jibriilu ñëw xotti wetuk càmmoy ga te yewuwul roccil ko faar gu ndaw ga soppi ko nit buur yàlla def cag ruuxam def ca jigéen kun fa yakunu moo am aadama dal di yow dal di awaa dal koy bëgga ti sooli buur yàlla dal jibriilu ne ko balaa laal awaa mbaa ñuy booloo na julli fukki ci xayrul xalqi moo tax ma bind leen ci kun bil xaqi aadama julli ci rasulullahi salaa wa sallama bilaa tanaahi boobee la doora sañ a xool xawaa te moo di faar gu ndaw gawan waraa moo tax jigéen bala nga koo laal tan ko loolaay ca nag aadama yonnan jël ko ko war ta takkoo sooy dawal di daanu saw fas di wéy nga faatu wéy niiraanu cosaan li lee tax ba jigéen day dëng ngir ku jubbanti faar mu damm lëng faarit la war ci moom ne bokk ci wet mbaalu ko muy ñu saaf ko yàpp muy xet dëng ga nekkoon ca xadim ca adama moom la ñu rocc roof ko awaaxi moo tax ba yàlla yónniwul jenn jigéen ku dëng duñ ko yónni muy dëngal ñeneen jenn jigéen mës la def ab yónnen lut ndeyi Moosa ak Maryama aman kon jigéen mës la gis jibriilu lut ndeyi Moosa ak Maryama ñoo kiilu bur yàlla góor lay yónni muy njubbanti ku jub te mat ndaw moo yorub lijjanti ama jamihul anbiyaai wa rusul faqakadun min al uloofi ya rajul wa hadadu rusli jiimun suma yaa bahdahuma muhmalu siinin fahiya Cheikh Bamba ne téeméeri junne ak nit buur yàlla yónnee ko ak diggante Adama ak rasulullahi salaa wa maam Adama yi awalul anbiyaa yi njool màkka mooy xaatimul anbiyaayi njool màkka mooy sababu kullu nasami moo tax ñu bind ñépp moom ak aadami moo jëkk a ñëw te mujj ñëw ci duniyaab bu dul moom kenn du ci duniyaab li di saayir sa li baatin ba dikk ak rasulullahi duniyaa yen ba diggante aadama ak rasulullahi mat na juróom ñaari junni ak saahi addis addis teg na ñeneen ci téeméer ngir xiili xaalaja tofal ca fanweer hadis ba teg na ñeneen ci téeméer ngir xiili xaalaja tofal ca fanweer diggante aadama diggante maam aadama ak tuufaana junni bi at la diggante maam aadama ak tuufaana junni bi at la diggante noohun ak kalaamulaahi mat na juróom ñeneen ci saahi diggante Moosaa mi kalaamullaahi ba jamonoy Daawuda indallaahi addis ba nee mat na juróomu téeméer bale addis nee na tofal na fanweer diggante Daawuda ba xarnub Insa junni la ak téeméeri at ci Isa diggante Insa ak rasulullahi mat na juróom benni téeméer billaahi addis ba teg ñaar fukki at ca ne yàlla moo ko xam du xaalaa xiila ma wax la at ya mursalin ya dundoon te ñu àndandoog jigéen ña ñaa baax ña le bon maam sunu aadama junni at la fi am moom la ko yàlla àppalan mu soog a dem mu dog juróom benn fukk ak juróom ya yokkal ko daawooda ca fan waa may ya yow ma alastu la ko may muhammada njool màkka bañ na ko mayal daawooda soxlawu ma yàgg ci duniyaa abada jigéen a tax aadama ñëw ci duniyaa jigéen a tax xaabil a rendi aabil moo jëkk a rey nit ngir jigéen tey xaabil a rey baayam moo jëkk a naan moo jëkk a wàcc baayam moo tax ku def yile ci doomi aadama ñu boole la xaabil nga jëm jaanama jigéen a tax aadama jooy lu mati weer rangooñi suuf ak asamaaw jant ki weer nit ak jinneeg malaaka ñëppay jaale aabil di jooyle aadamaa ka yaale maam sunu aadamaa ngi jooy di martiyaal doomam ja aabil réew mi mépp di ko jaal taxayarat bilaadu inda la waxoon moo jëkka martiya ci duniyaa la xewoon xatala xaabil haa bilaa axaahu kuray sa doomi baay ba dem falaahu lii lépp day jigéen ak saytaane ndekon nu dëkk fawu fil jinaani maam awa piir gaa ñu génne aadama aljana andi ci duniyaa bir ma moo tax jigéen mënee si koo teree fiir bañ wujj ak dëngay donoom te foora foor jigéen a tax aaroota ak maaroota mënatuñoo dem asamaaw di joota jigéen a tax mënatuñoo yéeg asamaaw bur yàlla soqi seeni laaf dootuñu naaw jigéen leen neexale boppam fa këram ci suuf baabil ñu àtteel koy biram bésub keroog lañ tàbbi kàmb ak sawaraab mënatuñoo dem asamaaw ndaw kasara taxar sa jollee adduna niiraani ci seen wakkan ya juutu lay fanaane ma wax la noohun la mu am ci duniyaa soxnaa ma tax toofaan alag way bon ya ma wax la noohun la mu am ci duniyaa soxnaa ma toofaan alag way bon ya noohun junni at la amoon ci duniyaa yu teg juróom fukk di fóot bon bon ya waaxi la tay soxnaam sa daara mbaaje xarnoom ba ndox mu teey mu dem la mbaaje moo tax ba taaw ba lànk weddi baayam duggul ca gaal ga dal di ànd ak yaayam ëkkam xolam lañ soppi ndey ja foofa mu dal di seey doomam jalab ñu dee fekkoon na baayam naa ko irkab maanaam mu lànk dab yéefar ya moo tax lam naam moo tax ku def yile ci doomi aadama ñu boole laam ñi le nga jëm ma wax la tey maam sunu ibrahima lam dundi at ba toj xërëm bahiima bam fa ñëwee dundoon na ñaari téeméer yu manki woon juróomi at daa toje xeer ngir moo tabax kax batu rabbu naasi moo soxna yaag doom ya amul waswaasi piiram jigéen tax ba ibrahima dem bàyyi aajarata màkkaag réew ma mu toog fa moom dong ba ismaahila juddu faf dëkk fa am jibrilam te saarataa ko tere ibrahimam ngir piir ma moo ne du dem ci réew moo tax ba saara tey sëtam di nasraan haajara tey sëtam di xayru adnaan isxaqa taawam ba dundan na téeméer yu teg juróom ñett fukkam moo am wóor rakam ja ismaahila am na téeméer tegal na fanweer ak juróom yaar soga yaqooba dundoon na ci duniyaa téeméer yu teg juróom fukk te xool na soog jigéen a tax balkaama al balxaama alkubay baw kamasalil kalbi la yàlla wax aw jigéen a tax balxaama alkubay baw kamasalil kalbi la yàlla wax aw te xam ne daana dem fanaani diiwaan aalim la woon mujj na alkuy yalwaan jigéen a tax bir fii te xam ne daana dem aram te mas la jeng yàlla ne law laa nraa burhaanam kon sax moom yàlla baraw seytaanam bul fàtte inna kay de kunna màgg na moo tax pexem jigéen rëyam ga ëpp na kenn mënu koo të lut ku yàlla dimbali yuusufa yàllaa ko musal moo dàmbale imraatul asiisi may saliixa moo tax ñu jëng ko ba tëj ko miixa gannaaw ba dencaat na ko moo rëyung may yàllaa ko may ay may tegal ko ay moy moosaa kalaamullaahi am na téeméer ak niti at ak yett loolu moo wóor déeyaale naag bur yàlla toori séena ñeen fukki fan gisul mbindeef soreena jigéen a tax xaaroona duural muusa ba al ko faw abadan fu leeku saa pexem jigéen tax mu jiñ ko njaaloo te xam ne Moosa sëriñam du njaaloo daawo demee Adama yokkan at ya am na juróom-ñaar fukk génn duniya su yokkulan fan wa mu gaaw a du jur Suleymaan ay mayam du yaatu jigéen tax daawo da dencen yu manqué benn boole ñépp ñuy reer xaabilatoo taaru ba xañ ko jàmm mu xëy ko nangu jël borom ne cumm limal suleymaan dundal na téeméer yu teg juróom ñett fukkam juney reer haajara ko faaru bintu saydoon mu fab ko jël te tuubagul te boodi yoon ñeen fukki at am na ko def baa doolo addina kenn moomu ko muy wandeelu jigéen a yor jaaroom ba def nguuram nga saytaane sàcc ko yoraat nguuram nga lépp pexem jigéen ak saytaane ni aadama ak awaa ba sakariya mag la nde am na téeméer te taxu koo màggat ba teg ca fanweer doom jaa di la mu am ci duniyaa juróom ñeneen fukk ak juróom mooy at ya jigéen tax mag noonu lay laa daanu say mel ni ku jàpp daa def kay kay xam ne moo dàqoon a ci arab yi luxo yi yépp moo ko taalif arab yi salmaa ko génne réew ma këf ko ñuy wey muy dem ba muy awoog jigéen ju mën a way sooy bu am na ñetti junni ci at ngir mbóot ya ak yonnan ya daana leen fat jigéen a tax mu mën a làq Muusaa may ko safoora doom ja yor ko Isaa ba am juróom yetti atam ca réew ma mu boole koog doom ja mu ñibbi réew ma waxi jigéen ak pexe maa ngi a baax moo tax pexe mbaay lu mu loola baax moo tax jigéen fu mu aw te juyoog baayam du mën a barkeel muy wolof muy yaaram saaliwu dund na ñetti ci duniyaa téeméer ba teg juróom ñett fukkam mosogo réer saaliwu dund na ci duniyaa téeméer ba teg juróom ñett fukkam mosogo réer pexem jigéen rey gëléem ak saalihu jàngal wasam si kon nga dal di kaalahu xudaara doon goro di gendal goro ya amuñu ndox mu ñu naan keroog fa kër ya ñu wax ko ndiig la ne gëléemug yonnen moo aaye ndox ma tey amuñu man-man keroog la ndiig la dal di cor siisam ya gëléem nga daanu sedd gu yëg cër keroog la mer banaa fa dam dama masu la mer ba wax ko doomu aadama sayidina Hóot aman na téeméer yu teg juróom ñaar fukk boolay sogoreer sayidina Lóot amoon na téeméer yu juróom ñaar fukk juróom la doore pexem jigéen tax ñu woo jibriilu ak ña daa àndal ni mikaayilu ñu ñëw këram walbati suuf si réew ma ña féete woon kaw féete suuf te ngeew ma xaaliyahaa saafilahaa la yàlla wax boolee ki doj ak taw bu tàng buy bax soxnaas lootun ta mën weddi yàlla su tudd waasi la ta tey mooy yàlla mooy boole gan ñu góor ña ak ña ñu mel ni bàyyi ma yaa ñu bon ña moo tax ba yàlla këpp suuf si réew ma alak jigéen ña ak góor ña neenal mbóot ya sayidina Insa dundoon na fanweer ak yetti at wéy asamaaw ma ngay leer dana ñëwaat àddina am juróom yaar mahdi ak mu sedd ak jàll fii xaar te yooya at nga gis jigéen ju alku joo xam ne kenn dootu ko fab ba yor ko tegal nabiyuna rasulu ahmada salaa wa sallama alayhi samada ñii ñëpp kat ci dara jaay rasoolu lañu ko wee ba mu ñëwee lañ soolu am na juróom benn fukkam ak yett ñu naa dundal dundal mu xëy na motto na yàlla xet waa ngoogu maa ngi tukki batale naa la ñoom ba may fekki wéy naa ca barsàq jaar xel yiinam fanaane firdawsi fa xóorul xiinam yàlla ne man dootuma yónni kenn ginnaaw rasulullahi maa fii kenn maa fii ne tey ngir maa fi nekkan démb maa fii ne ëllëg te si biir maay dambe dal na laa nabiyu baxdal Mustafa tey benn yónneen dootu am du fii faam fekkoon na aadama fekkoon na doom aadama yi dencante di jël ku leen soob te lu leen soob atte yónneen ya seen ngër yëpp dal di man suux ngërëm rasulullahi seddanig suux déglul ma wax la lëf ci ngeen ji yónneen ba mu ñëwee duniyaa la yàlla soppan doom aadama xeetu rasulullahi ñoo gën malaaka ak ginne neel billaahi moo tax ba yàlla naam bi rabbi naasi ak maliki naasi ilaahi naasi yónneen su fekkoon dafa def malaaka kon yàlla day wax malikul malaayika yónneen su bokkuloon ci naasi kon ñëpp dem sawara ngir xanaasi yónneen su mujj la na ñëw yónneen ya kon lan bi yaa alawli yaa adduniya jaam jigéen ak ceddo seeni jiime si jiina ak jaanama ak jayiimi kuy dégg seen ndigal di àndandoog ñoom di wéy ci seen ndigal di ngeen jaari jayim soo ko gëmul yëral ma fatxul manaan ca laa ko gis jawaabu abdurahman njol màkka xeet waral lislaami bam amagul diine amul cosaami diine yahoot ak nasaraan majoosa ak ña fi daa jaamuy xëram ca ñoo fi ne woon njëkkas rasulullahi ba mu ñëwee diine yeneen billaahi yàllaa ne inna diina xindallaahi lislaamu fi lqur'aani tublilaahi te diina joofi aw lislaami doo dem te yàlla looko jaamu-jaamu ba Moustapha ñëwee ba am ñeen fukki at lañ door a julli door woor ba yile at lislaam taxaw temm ñu wax ko la dagan ak la araam ci xeet tañ bale weyoon lu jëkk loolu kenn daawul julli sàkkaadi woor téere yi ñoo daa jàlle tawreetuha qad ixtawaaha Muusa injiiluha qad ixtawaaha Iisa summa hawa sabuuruha Daawudu kama axtawaa furqaanaha almahmuudu Bamba ko wax jant ak baada du ko tere falamtu Bambaay waada yàlla watal furqaana jox Jibriilu mu def ko ay laaya di jox rasoolu lu am mu wax la ca war ci diine ak la warul ci xeet wi moom du coone fa saalihaatun qaanitaatun haafisaat ak muslimaatun moominaatun qaanitaat ak taayibaatun haabidaatun saayihaat la yàlla tànnal Moustapha xeet wi du faat jigéen a tax waa kër rasulullahi garaw rasulullahi neel billaahi toog na ay fan gisul waa kër ga piir ma ak pexe ya am fa kër ga bésub keroog la yàlla wax jibriilu ne ko waxal jigéeni kër rasoolu ne leen jigéen ña lay jëkk dëkk ak rasoolu bu ñu geraw njol màkka maa ko wóolu jigéen ña lay dëkk ak rasoolu bu ñu geraw njol màkka maa ko wóolu jigéen ña ca doomi aadama bu ca xur ba ca xuraysin ba ca doomi aasimi ca jëkk rasoolu moo jëkk a jébbalu ca moom ngir wóolu moo ko sarax boppam rasoolu yor ba am ca ay doom musa hit mu rob ko xadijatu ñeent fukki at la booba njool màkka nit ak juróom la booba teewul kudul maam sunu ibrahima xadijatoo sa yaay defar na réew ma maariyatoo doon yaayi ibrahima moom la aman ci taara wóor na réew ma njool màkka boole woon na ak benn ci ndigalal jibrilu daawul tànn moo tax ba kenn roy rasulullahi ngir la mu sañ kenn du ko sañ billaahi bu kenn yar soxna rasulullahi gannaaw rasulullahi doonallaahi laa tankihoo aswaajihi min bahdihi la yàlla wax xeetam yi bul ko weddihi ma wax la nag ñu muuru ngën ji yonnin bés ba mu faatoo góor ña ñëpp wànnin fukki fan ñaar la ci diggiw gàmm di alteneem jëm fi dikkoon di ramm xafsatu doomi omarul faaruuqu aysatu moom babacar sadiqu ak Saynabu oog Maymunatu oog Safiya Juwayriya ak Ramlatu inda Safiya ak Sawdatu kenn mosu caa xëy bu óoru juróom ñenent ñi la ñoo ko muuru salaaha alayhi rabbuna kama stafaam wa alihi maha sihaabil hunafaam njool màkka daana wax ne buñ ma toppandoo ngir man damay ramu jigéen di jëlandoo hadisu man saaharani safihtu dellu ne man saahartuhoo asfihu mooy ko gorom leeg man danaa ko ramm ci yaari wàllam ba fa seen giir sàmm moo tax gorom leeg gaa yu baax ya baax na wàlliyu yaag sérif ya donn maana njol màkka daana wax ne maaman góor ñi bu ñu ma roy ci jikko yi nañ ràññee muy tabe gi ak njàmbaar gi ak bañ yéefar ak kasratul jimaahi doy nab tiitër tabe garab la ma nga sax ca aljana bàngaase tiim àdduna tab ya yéeg na way tabe yaa ca yéeg di dem jinaani te maay këleen di teeru maag ridwaani la ko waral yàllaa yebal jibriilu jox ko la koy may doole bés buy booloo jibril la yor njaq ridwaani ne ko nga réer ci añ ci dootoo daanu muy ñamu aljana wa xóorul xiini toggoon di xaar njol màkka ak ñooñ diine njol màkka moo ko mos ñam ci duniyaa ci doomi aadama muful kattan moo tax ñu roof ko kattanal ñeen fukki góor guddi gu ñëw muy yaale mel ni doomi buur kenn du ko roy ci dara dara dara ci xeeti xar baax abadan mbaasira ku mën a yor kenn na denc benn te yitte woo sart ya mbaa muy sonn ku mënta yor kenn nga dem di ñaareel defoo la ngir ya digle booba yaateel ku mënta yor ñaar ne balaw di ñetteel mbaa mu ñenanteel booba tooñ na yàlla lool ku mën a yor ñanant dem ñananteel ànd ak sartam yam fa def na ko miteel waaju ko weesu génn ngirum maalik soobu yeneen ngir lu mu def moom maalik sëriñ moom marja moom jandeer ma soob la boroom karaama la boroom sañ-sañ la sëriñ moom marja moom jandeer saadix la boroom xarbaax la tëmbër kaamil la sëriñ moom marja maca njar xaalim la du njar ci soom lamp faal mbaanik la sëriñ moom marja maca njar jar naa way ngir yoonu Cheikh Bamba la soobu tey wey am na ngërëm ci Lamp Faal ak Moustapha ak Daala Faal amul morom ci fii faam gëm na xalifay Bamba kay alhaaji ka boole Tuuba ak ak jumaa waa soowu jant moo di seenub jant leeral na dend bépp lii dum lënt ngir mooma noon dénk ma ndax nga dànk ma ngir fu ma jëm jigéen taxaw ne denc ma fu ma fanaan jigéen na jël ma jël ma di ma sarax boppam ba faf la jël mam moo tax ma def dénk bii ak saa bopp ak dépp saadiq bu ma jox am nopp du ma boroom xam-xam bu wér laa tanta waaye ñi fi roy ndigalam laay bantu amaana kuy laaj te boroom xam-xam la amaana kuy wax te boroomub cër la samaytuha wasiyatu niswaani wa kullu jaahilin min asubaani déglul ma wax la tey li war ci góor ñi te muy lu yàlla farataal jigéen ñi gannaaw canam gi wéy na bañ dencante def mu tasawi jay ni bay la yi la yenent moom la yàlla te góor ki na wasooy tënkam ba laaj ko aw góor ko la mooy farata góor day wodde njeem am na man nga gaaña duñ ko weddi nafa xatoy dund ba war na képp ku yor jigéen dërëm la mbaa muy pepp waaw gaa di wat u war nañuy laalante njeem soom na leen kët waru ñuy wumpante siin saa di sug naa dëkkuwaay bu yaatu war na boroom kër fa këram bam faatu yii rek a war góor ci jigéen njeem am na ko su ko amul mënu ko lam am war na ko góor gu amul mboolem yeneen ti yëf yi yoon fase nab sayam ci seen jabar yi góor gu ko man te di ko def ci ci wi lislaam tasul soxnaam jigéeni yoon wi jigéen ju tas te xam ne yoon tasul ko fayut alal seet ku ko neex mu jël ko guddi gu ñëw diirab dundam day njaaloo moo kam sëyal doom ya di doomi njaaloo yowmal xiyaam suy dekki jaari sawaram ànd ak boroom këram ñu tàbbi sàqara ku dox diggante jabar ak boroom këram ba may boroomam yàlla dootu la gërëm yowmal xiyaam ngeen bokk tàbbi naari jéggi saraar sax day du ngeen fa jaare kuñ ci mayul jëkkër ba muy def lu xaraam yaa koy layoo fa yàlla mooy boroomi jaam ma dellu wax la fi la yàlla farataal teg ko jigéen ñi sëy ba tax ko aaya taal jigéen di leen boole wareef na laa san yor la di waddu di dundal dolli ko ku leen fi boolewul wareefu laa san wareesu laa yor sànni laa gën di la san mat na juróom yetti jikkoy jigéen la limaamu Maalik moo ko wax moom góor la wajattu fi kitaabihi l-mudawwana riwaayatan an Maalikin masuuna jigéen na wattu la meñam moo njëkk bu muy rambaaj bum fen du jëw moo jekk jigéen na toog néegam te bum koy génn ñoŋal payam bu wér te bum xool kenn jigéen na topp ndigalal boroom këram moyuk tereem te di ko neexal ngir ngërëm jigéen boroom këram na wattuy alalam bum yàq mukk na ko def ni alalam jigéen na féete woo muñal boroom këram lum ñàkk-ñàkk bum ko laaj bennub dërëm jigéen na féete woo di sant sëriñam su ko joxee su ko joxul na dim sagam yi la juróom-ñett la yàlla wax ne jigéen ju leen boole ñu san lay junni jigéen ju leen mënul ñu war laa génn tànn ci àll ba ci yoonu diine waree su laa dundal waree su laa san waree su laa woddu araam na duy fen fal maratul lati lati lasiina tufsidu talaaqahaa min waajibin yaa mursidu fal maratul lati lasiina tufsidu talaaqahaa min waajibin yaa mursidu jigéen ju bon ju yàq diiney lislaam fase ko war na góor ña ngir bañ loo araam loo man defal leen loo mënul nga bàyyi leen moo war ci ñoom ba abadan fileeg feneen jigéen ji toppul yàlla toppul jëkkëram du am ngërëm file du am faayit ngërëm ma jëkk laa wax waxi gaa yi diine soog laa waxal hadiisu xayru diine jigéen day topp yàlla topp jëkkëram tey noppi tey sangu te jekki ca këram bàyyi fay ak téesante bañ koo takku su ko laajee lu mu amul jaaxal ko nay dab bànneexam fu mu jëm mu topp ko bu ko defee te sax ca barke dal ko te seeni jëkkër di leen muñal di leen teral di leen xamal diine bu wér di leen jubal ma wax la góor gu am alal am barke te faalewul këram bu faatoo alku góor gu fu am alal ju wér te jeng féete ci kenn bàyyi ñaar ngir jeng yowmal xiyaamati wetug càmmooñam mooy dekki ndajoor ba des ak bàmmeelam muy doxe benn tànk jëm siraata léeg-léeg malaaka dóor ko am talaata suuf taxa ñaale genn wet ga yóbbu mooy la liwalaalaat di dox di tàbbu lu weesu kam ñeent fukki fan góor du ko am te tëlewut wopput te laalul waa këram kon xëtt na sart ci yoonu maalik ngir la ànd ak ñaam bañaa di xaalik jigéen juróom benn fukkam mooy ñaari weer ku ko geraw boroom këram tas na ca biir góor gu ci am ab dund am ab kodd këram di bomboo weeri weer muy tëdd wala mu dem ne meng wa ci waa këram amuñu njël muy dox di denc ay dërëm yowmal xiyaam su dekki jaari naari am fa junni at te am fum xaari kuy sangu njël di julli njël di joxe njël di waddu waa këram du gis lu koy lëjël jàng ak julee ak tey joxe alal mooy yoonu jànnatu yow defal njaaloog joog def ab jabar ak jeng ci atte bañ la jàngkat ya jàng mooy yoon wa jëm ca sawaraw jahiimi aasna laahu min arrajiimi ma wax la tey jii la dagan ak la xaraam la ca rasulullahi wax ngir di garaam xaraam góor gu ko mas dem sawaraam pay xalaal góor gu ko mas naan kawsara negal ba takk soog a war bul maf ñu saw naaru góor kon gaaña raw ba kon gaaña tuur ba raw ñu negal ba takk soog bul maf ñu saw góor kon gaayi tuur ba raw ñu ku dem ci kuñ la mayagul dootul dagan loo ko dagaan dagaan ñu may la du dagan ku rendi mbaam mu medd daaw du nàcc ku rendi nagu medd daaw dib sàcc déglul ma wax la la ma gis ci téere ci baatinam ak la ma xam ci fóore ma jëkk laa wax seyxi ahmadu saxiiri lam wax ca way wa loolu am na seerem yàlla bindul góor ak jigéen ngir bànneex ak topp yàlla la gu ànd ak lu ko neex laa bi xadaa i saxwati nufoosi kama naqal naahu xani raisi a tax nu fil farjil xalaali faxlamaam ka tax ni fil jihaadi sawiyan humaam bal tax na tun waahidatun abdallu min safhina tax na tan bilaa qulfin sukkin déglul ma wax la koy wolof ngir yaaram Cheikh Bamba rek ko ko fi xam mooy jigéen ju yoon woo ca dem ji aar la ci noon yi bañ yoon màkka lii xabaar la nee yoon wu nekk sax a gën juróomi aar fukki jaar ca noon ya dëkke bakkaar fal ak subil ak si li lay safaan ba ku takkagul war daanu mel ne xaal ba bay mu xaraam yoon woo ca dem bakkaar la dér ay jullit ya bëgg yoon nen yaar la te yoon wu nekk ay gën a bon juróomi aar fukki ji fukki jaar ci ay jullit ngay bàkkaar te yoon wu nekkay gën ban juróom ñaar fukki jaar ci ay jullit ngay bàkkaar su la lewul nga rey fa ñetti téeméer yu manki nit ci malaayika yu foor su la yooyee dund di bind seeni yool ci diirub dund ka annama xatala mbooleem duniyaa la yàlla wax foofale doona suniyaa kon nag ku junni ci ay malaaka ngir lu xaraam na ngay layoog mawlaaka menn malaaka sax mënee su xam mënee su koo xajul ci am-am waaju ko gëm ba tuub na dem jinaanam ku ko gëmul tuubul na dem niraana tubtulahoo min jumlati saxaayiri maal kabaayiri wa min damaayiri man jàmme yàlla bu ma rëy malaaka te bu ma nit man sëriñ Musaa Ka yàlla def lu tax malaakay yi dundu nit dundu nuy dundu te lislaam dundu amiinam amina ne leen amina ci darajaay Cheikh Bamba kay maamuunam déglul ma wax la ci dénkum góor ña nga dal de xam ne ñëpp fi kiinu ja góor yàlla bam mu koy bind fonk lislaam moo tax mu bind ko jigéen dib surgaam góorit lu baax baax baax jigéen dib surgaam ci yoonu lislaam ko amul yóbbal du dem njool màkka mooy sababu kullu nasami moo tax ñu bind ñëpp moom ak aadami te moo ne ñoo yóbbal ci yoonu diine hunna libaasun la nu wax ci alxuraan gu amul soxna ci yoonu diine te mën yor soxna di daane diine mel na ni kuy tukki yorul ab yóbbal yorul malaan yaramu neen ngay sargal tasawajoo li anna afdal rijaal fi haasihi ummati aksarul xiyaal moo farataal denc jigéen ci lislaam ngir bëgg lislaam yokk fi yowmal xiyaam jibril ñëw ne fanki hooma taaba min annisaayi moog lu di sahaaba benn di ñaar mbaa ñett mbaa ñenant la alxuraan wax ngir ya naa dum lënt aatu nisaa saduqaati hinna la dellu wax can ya apaate woon na koo amul ak canam amoo warteefam waru la koo yor kon nga gàdduy àqam koo amul ak dundam amoo ko daayam ak dëkkuwaayam ak la war cig laalam waru la yor sakkaa yor koy ñaareel sakkaa di ñetteel wala ngay ñenenteel góor gu mënul yenent yi ci soxnaam yoon tas na waa këram ci diiney lislaam góor gu ko man te di ko def ci lislaam du mel ni ngir a tas këram fileeg saam buur yàlla laa yukallifu laahu la wax lu waay mënul tegu ko ko loolu moo ko wax lépp lu waay mën nag te bañ ci diine lu mën a doon dana layoog mu biini muy julli muy koor walla aj mbaa asaka mbaa ponk lislaam ya ca des la asaka mas naa tegal salaasa tegru baaxa la yàlla wax ci alxuraan neel xaaxa sarti yoon nen tax ba ngër ya wuute dencin ya wuute ilimaan ya wuute ahmadu anbal neena dencal benn njëm bëgg nga amaandu sa kër na jonn aboo ani fata ne ñaar mbaa ñett te bul ñenanteel kon nga maandu gantu sun ilimaan maalik def ñenanteel te bu ko kenn weesu ba def juróomeel limaamu saafi ful ko ñaare ne man juróom ñetti jabar laay gaare di yàpp mbaam di yàpp fas ak baax Malik araamal ko ne jenn wax la te xam ne moo jàngal limaamu Malik waaye ku ne déggam nga lay jox saalik jàngal ma yow xayru sabilil mu'minin ci alxuraan bul weddi bul topp ñeneen walam yuxasib bi tifaqin habdu yafxalu ma fihi xilaafun yabdu hadis ba ne fi axiri samaani ngir ya danañ mu jugandoo diiwaani ngir ngir yépp mat na ñetti téeméer yu teg juróom benn fukkam te yépp a wóor man lam yuhit bi jumlati sariha inkaaruhoo li mahlakin sariha li annaha jaat xalaa sittiina baxda salaasa mi atin waaju ci aw dem ca rasulullahi ngir moo ko digle woon li wajhilaahi bul weddi bul diinga te bul inkaari bul roy boroomu jagle bul bakkaari amaana kuñ naa la boroomu may la te booba kat boroomu mooy amaana kuñ naa la boroom xar baax la te fekk booba it boroom xaalis la amaana kuñ naa boroom baatin la te fekk booba it boroom baatin la amaana kuy waare ni man te waaruwul fu mu def lu rëy lu yaruwul ku waaru dootul talawaar moroomam day xante woo faf diggam ak boroomam aleykum moom anfusakum la yàlla wax ci alxuraan ku ne sikkam la war a wax aleykum moom anfusakum la yàlla wax ci alxuraan ku ne sikkam la war wax amaana kuy jàjje ni man te jàjjiwul di récciloo ka tuub lu fii te récciwul ku la haaji dam la tan ci amaana xotti luñ baax la ko wax jadd saful ak baada du ko teree paramtu bambaay waadam amaana kuñ naa la borom te yaari gët ya sax gisul basiiram wa in takun tarda bi kulli ma xadar fa anta soo basiratin wasoo basar bamba ko wax jant saful ak baadam du ko teree palamtu bambaay waadam amaana kuñ naa la borom karaamam fekk booba muy jëfee xaraamam karaamatul wàlli an laa yox siyaam bi saahirin wa baatinin wa xasiyaam bambaa ko wax jant saful ak baadam du ko teree palamtu bambaay waadam amaana kuñ naa la borom xinaayam te fekk booba muy borom janaayam borom xinaaya dootu am janaayam lum tooñ du tee diwaan faral ko muy yam man sabaqat min rabbihil xinaayam lahoo falaa tadurruhul janaayam amaana kuñ naa la borom sañ-sañ la te fekk boobale borom caay-caay la sañ-sañ bala am sañja am ak nattu ak tumu ati at ba fàtte amaana kuñ naa la boroomuk jagleem te fekk booba gaaye dañ koy jogle ak jagle dëgg ku ko am du wajaglu da ngay jagal ñëpp te doo wajaglu amaana kuñ naa la borom wilaayam te fekk booba muy borom riwaayam laakinama mahrifatul xaliyu ashabu man mihrifatul waliyu laakinama mahrifatul xaliyu ashabu min mahrifatul waliyu bamba ko wax jant saful ak baadam du ko teree palamtu bambaay waadam waliyu day walle di wellu góor ñam di wellu xol ya tey defar jigéen ñam di wàll góor ñam di wellu amaana kuñ naa la borom diraaya te fekk muy jógaa di sol daraayam amaana kuñ naa la borom nihaaya te fekk booba amagul bidaayam amaana kuñ naa la borom fadaayil te xam ne moos tàggoogul ak rasaayil maay rasaayil la sëriñ bay jëkke muxtil fadaayil doora am fa mbàkke amaana kuñ naa la borom wusoolu te muy borom xufoolu ak fudoolu waman taxallaqa bi waasilin wasal waman taxallaqa bi xagsihin fasal amaana kuy dajale gaaye tarbiya te xamagul yóbbu yoonu murit di tarbiya amaana kuñ naa la borom xaqiiqam te xàmmewul sariya toog tariixam amaana kuy woote ñu naa ko fardu mu beru yoonam te xamul sax wirdu fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawaaun intama ila aljilaani aw intama li ahmad attijaani aw li siwaahuma min al aqtaabi is kulluhum dalla ala sawaabi amaana kuñ naa la borom te fekk booba kat boroom dërëm la ridan wa rahmatan min allaahil badii xayrun min addunya wa maa fiha jamii amaana waaju lekk ay hidaayaam te argul huddan di xim ataayaam huddan wa nooran wa ridan wa baraka xattooji bu sukkoona summal haraka amaana waajuñ naa la koo kab seex lu wul bon borom ba neex la ab seex da daa seex lu lu bon ngir yàlla te su meree siixal meram ngir yàlla wal kaasimiina al xaysa wal xaafiina la yàlla wax yónneen ba mer ma jeex na tuuboo xalal fawri is anabtumo doomoo xalal sukooti in xadabtumo amaana kuñ naa la boroom xam-xam la te soo kunoo mbiram boroom xorom la fa kasratul xelmi bi xayril adabi jaalibatun ilal ataawa tahabi al adabul adabu summal adaba wa huwa an tabarra umman wa aba wal hamma wal hammata wal axal kabir wa shaykha anna shaykha bil birri jadir tariqatul adabi rahmatu saxir kalab bi wal ummi wa tawqirul kabir amaana kuy woote di wut ay taalibe te mënta xam ne booba yoonu taalibe wasul muriidu tarkuhul iraada li wajhi man yafhalu ma araada man lam yurid shay'an siwa mawlaahu yasillahu wa xayruhu awlaahu amaana kuy tarbiyaloo ka tarqiyam te xamagul luy taxliya ak luy taxliya wa man li fiqhin wa tasawufin jama fa huwa alladi huqalahu an yutabaa ku yaruwul du yare kuñ tarbiyawul doo mën a tarbiyay fal wa kullu man qabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamal fa innahu yaxoodu fi bahri rada wala yaji'u minhu shay'an abada ay dal na kuy dox ak mbarloor jongagul bés bu ba xam jongagul amaana kuy soomu di woote xutbu te soo demee diiwaan ñu naa ko kalbu wa rubba abdin xat xalaa xindal xuyoon ka yabiin wa saytuhoon tasara fil buldaani wa huwa kal xirdi la amaana kuñ xeppi ba duñ ko faale te su demee maa labdaali wa rubba abdin saanuhoo fi saahirin wa dimnuhoo kabiiru wa rubba abdin saanuhoo xasiimu fi saahirin wa dimnuhoo sahiimu wa rabbu yansuru illa ma batana wal xalqu yansuru